salaam waa Sangomar TV maa leen di bëgg ah, yéen ñëpp mais seen série bi am na solo torop man la aji dëkk Wakaam waaw di suivre seen film bi chaque samedi neex na torop vraiment mais nag dama bëgg ngeen libéré Maïssa Fatima parce que jot na nag liggéey na travail na libéré leen ko libéré man la Bintu Njaay dëkk Touba Guédé libéré Maïssa Fatima libéré Maïssa Fatima dañu sonn ci xaar bi sir bi safatuñu dara ndax may sa Fatima mi ngeen tej libéré len ko way sonu nañ trop ci xaar bi la señ kan dara mi nam libéré may sa Fatima man la asu tay dekk dëkk ma sar libéré may sa Fatima libéré may sa Fatima libéré may sa Fatima suñu bët yi gëmmentu na nam nañ ko bëgg nañ koo gis libéré Maysa Fatima man la dëkk bi tàkk libéré leen Maysa Fatima yi talaat Auchan yeeg Total yi de leer laa leen wax Maysa Fatima foog ngeen man la Ibrahima Diouf dëkk Lambaay libéré Maysa Fatima waaw nañ ko war a film bi dafa jot pour ñu libéré ko pour mu neex quoi film bi gën a neex waaw libéré na ay safaat salaamaaleykum may sa Fatima libéré may sa Fatima yàgg na torop te dañoo sonn ci xaar bi waaw man la Moustapha dëkk Fassouré waaw libéré may sa Fatima xaar bi yàgg na lool lool sax lool waaw libéré libéré may sa Fatima libéré leen ko libéré may sa Fatima nanu libéré may sa Fatima nanu libéré may sa Fatima may sa Fatima gisul yaayam may sa Fatima gisul baayam nanu libéré may sa Fatima dañoo sonn ci xaar bi Mbaye Diop la dëkk Touba may sa Fatima dafa war a génn libéré Maysa Fatima libéré Maysa Fatima Maysa Fatima yàgg na ndaayaan dañoo sonn ci xaar bi dafa war a ñibbisi ñun dañoo bi dafa war a ñibbisi indaale jabaram. c'est Demba Diallo Fouta Tooro libéré Maysa Fatima libéré Maysa Fatima libéré dañoo sonn. ci xaar bi. man la si Modou Niang dëkk Touba Ndamaatu libéré Maysa Fatima xar bi yàgg na trop libéré Maysa Fatima yàgg na ci néeg bi trop nag. di ñaan leen libéré Maysa Fatima xar bi yàgg na libéré Maysa Fatima libéré na waaye ñu ko libéré waaye nam mënoon ko trop. buur bi nu mu tuddati waaye buur bi nekk ndaaya mais yow libéré waa ji waay ah libéré Maïssa Fatima libéré jot na de billaay. man la ngi Fatima warul des ndaayaan. man la Yacine Dieng dëkk Touba sama série préférée doomu xaar bi yàgg na lool libéré Maïssa Fatima libéré Maïssa Fatima. عينا بوهن ليتان لبير ما فاطمة xanaa bu soon libéré ma Fatima Mor Ndaw ba ci bëgg yaayam maa ngi fii ci Maroc waaw mais libéré leen may sa Fatima bokk ma ngi tudd Khadija dëkk village ci région de Louga département bu sori donc ngi ñaan ngeen may sa Fatima sàkk ay yàlla bu ñu sàkk ni baa jàmm la waaye rang ñuy libéré may sa baat rang ñu koy libéré libéré man la Seydina dëkk Issine Bène Tally Dakar waaw di rafetlu bu baax li fi jot a jaar lépp mais jot na sëkk nag namm nañ ko pour ñu libéré may sa Fatima libéré may sa Fatima libéré may ñang la tey ma ñëween waaw ñun dañaa xaar ñoo sonn si xaar bi libéré Maysa Fatima sonn nañ sa xaar bi libéré Maysa Fatima libéré Maysa Fatima Sangoguma TV Sangoguma TV Sangoguma TV la scène qui vous ressemble et vous rassemble